kay ma jéem teelu Maodo Malick sa woyu mag wa maam Thierno murit ak tii fii si njaare murit ak tiijaan nee nan waaw faj aajo yaa si gaaw ku la sopp nga faxas ay bakkaaram kenn du daw ut la nga tas yaakaaram yow yaay sunu wasila maam Thierno nit ak ginna daw ut la yaa yar say taalibe si xam-xam ak say sët ba ku ñu weranteel am ndam tey ma bàkk la yërëm ñoo tax yàlla sàkk la kii mooy maamu sëriñ Habib ak Baye Daara tant bi sedd leen ma wax naa xaala góor yàlla nga bu amul benn sikki sàkk Maodo ak Bamba sedd nañ ko fees dell ak wilaaya ne tekk ak moom góor gii moo a doy sëriñ njiit nga ci góor yàlla yi léew doo ñoom ci kun daal leen fa yàqun mosoo jóge ci duñu jóg gindi nga ñu jàppoon nit kay moo matul ñàkk laa xam ba nga li la yàlla may jox ko keneen te taxul nga bàkk maam Thierno fii si njaareem mujj teg Tidiane nee na waaw yaa fi téye drapeau Cheikh na ma Tidiane Serif dëngul wàccul kuy taalibe Cheikh xàccul yaa fi samp jàkka yeeg jumaa yi laa ilaha illallah bi di jolli kurus yi di jaayu naasiri xaq bil xaq di yëngu si dënnu góor yàlla yi nga raxas xol yi faj ruu yi feebaroon gone lu mu tuuti tuuti jóg fajar kàbbar suñu borom allahu akbar maam raxasal sama xel ma am kattanu wax ci yow seytaane may waaj a fexeel te dama jeex tàkk si yow maam ñaanal ñu roy si say jikko di def lu baax safaan ba ñu bàyyi ko lu mu jaamu yàlla ñu tàyyi ko yaay doktooru ruu raxas nga xol yi si ngëm yàlla ak julli sopp na bi ak seex ba ba ñuy suuli dëgg-dëgg yaay jàmbaaru góor yi gàddal nga géeju xam-xam yëpp te taxul ngay bàkk xanaa dëkk di làkk ngërëmal yàlla rek nga ci sàkku tuubloo nga ceeto yi bal tàkkul jaaxal nasaraan sa bàyyi ibrahima kanji bàkkul amul sikki sàkk yaay imaamu sereya maam cerno boole ma ci gaaya réeriloo say taalibe de firil nga leen hadis ak aaya xamal leen alquran diisaayu saar bawol li ko wër ñu daan grand place baar ya nga jàngaleen ba nu raw naar ya maam Thierno nag ma baal su may wax si yow damay am xaal yaa ñu ñamal cafka laa ilaha illallah suñuy wasifa du bëgg mu jeex allah allah xamal yàlla doog ko jaamu soo déggul sama wax na nga maamu maam Thierno ñun yow lañu taamu sanga nga xel yi fóot xol yi li nga ñu wane yéema waral suñu jooy yi dabel baara ba bokkaale jaamu xërëm yaa ñu ko sori bi nga fi jógee ba léegi maam Serigne Cheikh Kandji doon xalifa juróom fukki at yi mu toog ameloo say taalibe ak xamee woo am ak ku ñàkk ku daw ut si la nga teral ngir jëmm ki ñu sàkk bàyyi jirim yéeg bàyyoo yi bëgg doomu aadama daan faj aajo yi su daan jàng alxuraan kenn du bëgg noppi maam Cheikh sunuy xol dootoo si sàpp toftal si sa sarak sëriñ Mamadou Kandji jàmbaaru lislaam bëggoon alxuraan ba jeex takk jàkka yeeg jumaa yi seede nan ko fonkoon xale yi daan jaamu yàlla si mala yi daawul dañ ci jóg fajar buy wax si yàlla ànd ak kii moo yor martaba ëhlu badar di ñaanal xalifa bi sëriñ Habib mot nga sëkk imam ratib fu sa sa jëf moo ëpp sa wax bëgg nga say taay bi uuf rakk lu yàqu sa kër nga tabax di si toftal sa rakk bàyyi daara fulaam ak faydaama tax kenn duñu yem si xam-xam kenn du ko dab may ñaan si yàlla mi sàkk asamaan te yi ko buru daanu xar suuf si génn si ay meññeent boyal safara ak i ferñeent xóoyal ndox saxal dugub génne si cox nga gis ay kéemaanam di giit di lox rabbana maa ngi lay ñaan nga boole maag jiwaay fii duniya hasanatan wax leen amin cey subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin